asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen ñi bàyyi xel seen site internet euh, murit point info ñoo ngi nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant ci di leen ziyaara baax moo xam ñu nekk ci biir réew mi ak bitim réew rawatee te ñi nga xam ne ñu ñuy topp ci facebook bi fu waaye nekk ci àdduna rek ñu ngi lay jagleel nuyu ak siyaar bu mat sëkk mu mel niñ ko baaxoo defee ayu bës bu nekk ñu ànd ak yéen ci seen émission bi nga xam ni moo di yeewu yeew yi yeewu yeew yi di émission bu nga xamante ni dañ ciy dalal ay kilifa diine waaye tam ñi nga xamante dañuy yëngu ci wàllu àddina muy politique ak ñi nga xamante ni bii borom métier lañu ca ñi am taxawaay bi am solo boo xam ni am nañ ko ci askan wi ñooñu nag moo tax seen émission yeewu yeewi jóg tey nag ginnaaw bi ñu ñëw fii ci tubaab Touba 28 fekk si fi kenn koo xamante ni ràññee nañ ko baax a baax taxawaayam ci wërgu-yaramu doomu aadama ñëw fii nag ci euh, cabinet Serigne Abdoul Ahad Mbacké fekk ko fi mu di docteur Abdoul Ahad Faye ñu gën koo xam ci docteur Faye moom moom mi nag moom lañ euh, fekk si tey mu mel ni day yëngu ci lépp lu jëm ci wàllu faj faj gi nag jëm ci wàllu bët di loo xamante ni lu am solo ci doomu aadama la dañ koy jébal kàddu gi mu nuyoo ak mbokk yi su ko defee nag ñëw sóobu ci li nga xamante ni moo di waxtaan wi. ñu ngi nuyu euh, mbokk taalibe yi nga xam ne ni ñu ngi bàyyi seen xel site bi euh, ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ñu dalal tey. ngir ñu mëna la laa ak ñi nga xam ñom lañ bokkul dëkk bi ci walu yi nga xam ni ci liñu yëngatu muy walu fajum bët ñukay koy soins oculaires euh barab bi nak mom lañ wax cabinet Cheikh Abdullah Lahad Mbacké nekk fii ci 28 bi ñu yëngu ci euh, euh faj faju bari euh, bët di ciy benn ndax tay man la concerner xeyna ëllëgé bu ñëwé da leen wan maternité soxna Mariama Jaxate bi fi nek beneen yoon ñu woon leen unité de constation général bi fi nekk loolu lépp nag ñu def ko rek ngir laayante bii rek ñi nga xam ne nii ñoom lañu bokkal dëkk bi ci wàll wi nga xam ne moom lañ jàpp ne moom lañ xam mu di wàllu faj ba li nga xam ne nii moo fi xawoon na jafe ñu fexe ba mu doon fi lu jàppandi dépp nag nekk ci cadre labyrinthe dimbalante comme ni ko sëriñ bi bëggee. jërëjëf monsieur fay ci euh, leeral yooyu nga xamante ni indi nga ko mbokk yi. kon xam naa nag dañuy euh, sóobu direct ci euh, waxtaan wi euh, fi ñu bëgg a njëkkee ak yow mooy ñu gisoon ni ay jamono ku bëggoon a faj bët ci région Diourbel bi yëpp mën nañu wax ni da nga dem ba dakaar nga jànkoonteeg ay jafe-jafe ak ay coono ñu bëggoon a xam lan moo la xiir ak itam ba nga bëgg ubbi ba nga ubbi fii nga xamante ni bii moom ngay yëngoo waaye itam lu jiitu loolu lan lañ mën a jàppee lan mooy bët. jëf laaj nga ma question boo xam ne nii. Euh, dana ma neex loolu ma tontu ci ndax comme nan nga ko waxee euh, yaakaar naa unité bi fi njëkk a nekk fii Touba euh, man maa ko ubbi woon ci 2005 novembre 2005 ci Matlaboul Fawzeyni booba kenn rek laa woon mu doon loo xam ne nii xëy na lu njëkk la woon Touba muy am service boo xam ne nii ci wàllu fajam bët spécialisé wu na ci woon li tax nag ñu tànnoon ñëw Touba ndax lu fi jafe woon la. Euh, man bi ma nekkee formation Dantec dama daan gis ay mbooloo yu bari di doon jóge fii di ñëw bu ñëwaan def fa ñaari fan ñetti fan yenn saa nga ñëw ñu ne am nga rendez boo xam ne xaw naa gudd nga demaat sa kër mbokk yi mu doon loo xam ne daal xawoon na maa naqari ndax mu doon dëkk boo xam ne dëkk bu mag la yeeyoo am lépp waaye dafa mel ni dafa amoon ak seetaan gu ci am ci wàllu woowa. Mm-hmm. ndax xëy na ñi nga xam ne nii ñoom lañuy forme ñu leen di woy ophtalmologiste yi. ñu ci bëri jotewuñ ci woon ci ci ci ci région yi sax waxuntuma laa nak di ñëw ci département waxuntuma laa ci communauté rurale mm-hmm. euh da doon laaj nag ku am volonté moy ko xamné ni gëm na ni mbir yi mëna tambalé ci mom moom ko ci tamit ndax tey jii ñu ngi ci sant yalla ndax euh, xeyna bu ma nee woon la ubbi won def naa fa juroom ñetti at mm-hmm. tey ji fi ma nekk ni xeyna walu wi xamné ne ne mooy fajum bat man mako ko fi yor euh, euh japp naa ne yéen ñi fi nekk ngeen xam ne am na doole yi nga xam ne nii moom la yenn service yëpp am bokk na ci service yi nga xam ne ñoom ñoo gën a équipé euh, ci ci biir région bi moo gën a équipé ci service région bi waaye tamit jàpp naa ne intérieur pays bi bu dul Dakar mënoo fi dem barab boo xam ne nii xëy na li nga fiy fekk nii ci wàllu matériel ci wàllu euh, infrastructure di ko fa fekk. Euh, bët moom am na ñenn ñi dañ koy woy buntu xel. mu ngi doon ay ñaar ay seex lañ yoo xam dafa nekk si xar kan mu doomu aadama ñaari mbar ëmb ko mu ni ci biir di jox xel li nga xam ne nii moom moo ko wër xel togg ko xàmmee ko man di ko tuddee ay tur mu doon loo xam ne nii ku ko am ku ne ba ñàkk ko da ngay xam njariñam ku ko mës am nag xëy na doo xam njariñam da ngay dégg nit ñi di wax waaye ku ko am ba ñàkk di nga xam njariñam mu doon tamit euh, organe boo xam ne nii bu xaw sensible la muy xam-xam boo xam ne lu xaw a beru la bokkul ci xam-xam yi nga xam ne dafa yaatu euh, nit mën na jàng médecine ba pare du ci xam dara mm-hmm. ndax boo amul chance su spécialisé wu ci wala xëy na bi ngay def sa stage nga jaar fañ ko defee te jaar ci fa jaar ci sax ci wàllu stage doon na waxtu wu néew yoo xam ne ni dina tuuti ci nit pour mu xam ca lam ca war a xam mm-hmm. ndax loo xam ne lu nit ñi jàng ay at lay doon euh, euh, ci loolu tamit muy doon loo xam ne nii ni mu waree bari ci réew mi bariwul fajum bët bët bëñ moo ko gën a yaatu yeneen xeetu faj yaram moo ko gën a yaatu muy doon faj moo xam ne nii xaw na xat ndax liñ ci formé ku bëreegut ophtalmologiste yu néew lañ technicien supérieur yi nga xam ne nii ñoom lañ formé bëreeguñ ñu war a bëree ñi ci spécialisé en en chirurgie de la cataracte tamit bëreeguñ nañu ñu war a bëree moo tax euh, gox yi nga xam ne moo moo moo ne ci biir dëkk bi fu ci nekk am na ñenn ñoo xam ne ña nga fa. Euh, yow euh, lan yan façon xeetu jàngoro yu moom nga ëpp ci looy recevoir par jour euh, lan mooy saw jàngoro yooyu nga xamante ni bii tey suñu réew mi xool dëkk bu Mbacké bi euh, fii euh, dëkk bi li ñuy gis mooy ñu bëree bëri dañuy jànkonte ak jafe ci wàllu na nag xanaa dañ koy xaaj ci ay ay ay ay ati nit ñi mag ñi ñu ëpp ñu lu fi ñëw ñu ngi jàmbat diggante cataracte yenn yi tension bët bu dee si waxambaane yi jëm suuf dëkku kër-kër la moo tax gaañu gaañu bët lu fi xaw a bari la rawatina euh, xeeti menuisier métallique yi ak euh, menuisier bois yi mm-hmm. yenn saa tôlier yi ak yooyu yëpp ñu ci bari dañuy faral di am ay gaañu gaañu bët mm-hmm. jumtukaay yi ñuy xam ne moom dañuy jël di ko di ko utiliser yenn saa dina am lu ci ci dugg seen bët mm-hmm. bu dee ci wàllu xale yi yi ñu ci gën a nemmeeku day doon gune yoo xam ne dañuy jóge si daara yi mu am benn xeetu wanet woo xam ne ni dafay faral di leen di leen dal mm-hmm. te képp ku am seetlu wala ku faral dem daara da gis ni suba gi gune yi bu ñu xëyee da ngay gis seen bët yi ci bari di bas di laas mm-hmm. mu doon doomu jàngoro boo xam ne nii euh, day war nit ñi di si waxtaan day war nit ñi di si jóg ndax bu ci jóg amee rek saafara mën na am mm-hmm. euh, euh, ci foofu sax lay gën a insister ndax day doon loo xam ne nii gune gi nga xam ne nii mu ngi ne ci daara nekkul ak waajuram cet ga ca war mën na ko bañ amal boppam. te xëy na ki nga xam ne ni moom moo ko yor su dee leer luñ ko liñ ko war a leeral ba yenn taxawaay bi mu am ko lu demee ni xale bi bu xëyee balaa mu jàng mu ne ko dama sëlmu su ko munta sëlmuloo mu jàppaloo ko. ndax am na ci ay gëstu boo xam ne def naa ko mooy dama seetu daara yi nga xam ne nii gis naa ne. Euh, dañu leen di faral di leen julliloo waxtu yu juróom te julli googu ñàpp di ko di di di ko jiitu gis naa ne xeetu jàngoro boobu lu xaw a néew la donc te loolu gën ne ba tey ndax jàppaloo gu ne miinal dèjà da nga lu baax balaa moo jëm ci alxuraan. Mm-hmm. ko waxtu yu julli yi juróom. day dëppaat loolu doon xéewal di ko sàmm ci wàll lu mel noonu. Mm-hmm. donc day doon te jàngoro boo xam ne nii bés ci waxee jéem ci. ay matuwaay yoo xam ne ne sa doon yu compliqué yu woyof lay doon te xam ne ni ñëpp dañ ko mën a jariñoo mën na dem ba xam day sàmm wàllu woowu ndax fi ne ni balaa laa andil jafe-jafe dem ba xam génn nga daara ndax koo gis tey jii mu am xef lu mel noonu moom moo koy jox du ma ne ci daara lañ koy jëlee nit na ne sa ci kër euh, anam yam war a nekk nekku ci wàllu setam doomu jàngoro mën na faa dugg ba mu mujj am xef euh, nit dina ne ci daara nekk fa ba génn fa dem ba nekk boroom kër loola doog di ko jot muy li ñuy woy trichiasis mooy xef yi nga xam ne ni dafay dëpp di laal peru bët bi mm. ba nga xam ne su ko fajul dina dem ba mujj jur euh, ay gaañu gaañu bët yoo xam ne mën na dem ba mujj yàq bëtam mu doon yoo xam ne nii dama ko faral di ko jot daanaka fi ne nii euh, Touba dafee dafee dafee dafee saaw mm. dafee sax daanaka muy doon loo xam ne li si war a jóg la te loolu kenn war cee jiitu jiitu également autorités sanitaires yi nga xam ne ni ñoo nekk si dëkk bi mm. Euh, ñuy jox information bi ñañ ko war a jox euh, ni paludisme amee solo ci dundu nit ñi bañ koy taxaw di def xeet opération bu nekk noonu la faju mbët mi amee euh, solo bañ war ci taxawu ñooña couche boobu nga xam ne dafa doon couche boo xam ne ni bu xaw a buñ xaw a seetaan la muy lépp lu jëm ci daara ak njàngaleem alxuraan nit ñi dañ ko dañ ko xaw a seetaan ci loolu am na ci précision bu précision bu ndaw bu may def ndax seetlu naa ne at yi ñu gën ci gannaaw am na benn programme bu ñu doon def boo xam ne dañ ko tuddee woon lutte contre le trachome muy ay ay ay ay campagne de distribution d'azithromycine muy benn euh, euh, ay garab yoo xam ne dañ ko daan jox nit ñi. pour mu sàmmal leen seen wér-gi-yaram protéger leen ba xeetu wànnet boobu may wax trachome du fi am. Mm-hmm. waaye damaa amoon seetlu ma ci def mooy daanaka dañoo dañoo wër Touba mais yëmi Touba kenn laalu ko te man awma ci woon tontu ndax lacc naa. laajte naa ña ma ko woon lu tax Touba boolewuñ ko ci li ñu li li li li ñu li euh, campagne boobu waaye doonte yi ma ci jox li ma ci wax doyuma ndax boo nee ma euh, amuñu ay statistiques yu fiable à Touba wala nga ne amuñ ci ay données yu leer. Mm-hmm. day mel ni bon ñi fi nekkoon di càmbar wàll woowu lañ ci waroon jëbbale daaw ñu ko jëbbale te loolu amul ndax man diirub ba ma fi nekk lépp lees ma ci masa laaj joxe naa ko. Mm-hmm. samay rapport at mu jot dem na dem na fa mu war a dem donc mënu sukkandiku xëy na loolu dana doon lu tuuti parce que. Euh, réalité yi nekk ci biir euh, euh, service yi. Mhm. mën na ba ñu refléter dëgg dëgg gi fi jàngoro bi toll ci biir nit ñi bu nekkee sans xëy na yow peut-être dix nga jot biir service yi mais tey ji am na foo xam ne bu fa too tollee rek ci gis-gis ci wàllu service yi war nañoo ñaaw njort que ni lii de bon am na foo xam ne war na fa àgg ci population yi nga xam jotewuñu service yi. Mhm. bu ko defee matukaay yooyu nga xam defal la ñu ko ñi nga xam ne ñoom ñoo wër Touba dañ ca a taxaw waaye ci ci wàll woowu am ci gëstu boo xam man maa ngi ko ci maa ci doon def euh, sama mémoire master ci laa ko def. Mm-hmm. ci ci ci wàll woowu ginnaaw ba ma ci wutee ndigal dem waxtaan ci sëñ Mamour Mbacké mm, am ci gëstu yu ma def bind naa ko ñu ngi koy ñu ngi koy xool ko càmbar waaye li mu ci jublu mooy euh, wane ni lii lu fi am la. Mm-hmm. am boobu mu fi am tamit àgg na dayoo boo xam ne nii na ko ñu nañ yeeyoo yeeyoo yeeyoo nañ ko ñun léegi nag Touba. ku ko soxla ku ko soxla ku ko soxla ñëw fi ah. Mm-hmm. Euh, ku naan ku naan aw ma ci données mooy da la yitteelul waaw mais ñi mu yitteel ñu ngi ci te yeneen wàll yi xeetu faj yi euh, stratégie yi ñu ci war def ñu ngi koy def donc euh, fajum fajum bët te ko surtout ci wàllu lutte contre le trachome xaw nañ ko ci ginnaawal tuuti. Mm-hmm. léegi nag loolu day doon loo xam ne nii dañ ci woo autorités yi ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom la seen bat ak àgg fenn fi man gune laa am na foo xam ne nii sama sama baat jutiwu fa. waye nak wax deug ci lu jëm ci Touba ba nit ñi xamé ko nonu ba xamné ne li nga xamné ni nii war ci walu sañ nañ ko laaj te taxawul leen ci. Mm-hmm. man daf may war sama digënté ak sëriñ bi daf may won sama digënté ak sama borom dox wax deug ku ci nekk da am lo xamné ni da daa war sa digënté ak sëriñ bi pour ngay leeral ci li jëm ci lu amal ndëriñ dëkk bi. boko ko waxee ni sax dinañ jam ba jappel leen ni waye du man lu mën du lu mëna ñak parce que japp na né loolu lu ñu def la ba teguñu ko fenn. moo ko wër mm-hmm. ndax ndox mom day sét rek Mm-hmm. ndox mi ñi am tuba set na mooy lab na mm-hmm. ndox mi ñi am labna, ndox xorom du ko yak xorom bobu yakku ko euh, calcaire bi ci nek yakku ko bu amul ay doomu jangor du wàññee dara surtout ci walu selmu mm-hmm. léegi nak minel nit ñi ñuy selmu ci ndox ak sabu xina fofu lañ agul ci wàllu cetu xar kanam lol day doon lo xam dimbali nit ñi surtout gune yu ndaw yi da ngay gis ko xam ni way ju day yewu su gi way juram ko sang waye boko sangul de nga selam ko bam set mais laas yi nga xamne mom lay fanan mom lay xey hein ah, ah, mom day las fan yi dako wéfa lol dal té day dem ba mujj jur lo xamne ni xeyna jangoro bu chronique lay don ci mom dem ba juro ko lenen amna ño ñoo xam dañuy dem ba mujj gi wa net wo day dem sen beut domi newi newi yi néew yi mujj gi def tab si biir ba da fay da fay da fay yàqu té lolou xam nga sàggante la rek ak ñak xam ko xamne ni buñ leen ci leeralee lañ ci war lañ leen ci wara a xeyna mën nañu jël yeneen matukaay ndax Touba fay ndox kon seulement war nañoo yomb ndax ab përngalub saabu rek nga jël boole ko ca donc xëy na information bi ñu war a am moom lañu amul mais bu ñu ko amee bu ñu ko amee am na loo xam ne ni duñ ci duñ ci duñ ci duñ ci euh, duñ ci euh, am ay jafe-jafe ñu ko daan amee daal. Hmm. tey euh, loolu. kon li nga wax ni moo tax nga jóg di xeex. xeex boobu tey ndax yaakaar naa aajo wala matériel bu nga xamante ni bii bu war a méngóog jamono la ndax jamono saa su nekk day dox. ndax mën nañoo xam tey euh, matériel boobu mu laaj lépp lépp am nga ko wala foo ci toll ci liggéey bi ak nan ngay consulter euh, say euh, ñi nga xam ne ñu fee. ñu ci sant yàlla bu baax ndax xëy na tooguñu rek naan sëriñ bi baax na tooguñu rek di di xaar lenn fen ñu ngi jóg si suñu ay pexe bopp ci li ñu yàlla wërsëgal mu néew mu bari ñu ngi jël suñu kéemtalaay kàttan di ko delloowaat ci fajum butum population bi. Mm. suñu kéemtalaay kàttan. salle bi nga nekk ci benn ci unité de consultation yi la boo xoolee di nga gis matériel boo xam ne nii xëy na boo demoon feneen it doo fa gis lu romb lii. Mm. am na ci beneen salle boo xam ne ni également mu ngi fële. Mm. lépp lu jëm ci wàllu euh, ay verre ay xeet yëpp ma nga fa ak euh, matériel bi ñu leen di saytoo lu mel ni ay réfractométrie automatique. Mm. Euh, lu mel ni ay javal yooyu yëpp xeet yooyu ñu ngi fa. amaale nañ fi également benn unité boo xam ne ni c'est pour la chirurgie mooy xeetu opéré yi nga xam ne nii dañ ko fiy def muy xeetu opéré ay xef. opéré ay ay ay piccu bët té di jon opéré cataract yu ndaw ndawaan yooyu nga xamné ni nii bari na ci di gox bo xamné ni fay dem lu melni jurbel lu melni daru eluga. musi lu melni ay eh, louga nekk fay def ñu melni ñun lañ té tuburanke woon na touba jamono yo xamné kuko mësan bëgg dang koy dem mm-hmm. té touba ci wal population yeyo na té ji la nga xamné dakar yeyo na ko ci wal wu ci nek nak yeyo na ko xeyna euh lepp mënu mm-hmm. initiative yu melni dama japp ne bu démé ba yaatu te loolu kenn buur ci jiitu ñi nga xam ne nii ñoom ñoo gëm Touba. yaakaar lu ñu Serigne Touba bëgg dëkk Touba parce que yéen sax parce que yéen dee fas yéen ñu denc leen fii ñooñ kenn waru leen si jiitu. te loolu lu mel ni nag saa boo koy def xëy na des na la xoqatal des na la des na la dëkkal sax foo dëkkul. ndax dañuy niru koo xam ne ni da ngay da ngay jël initiative yoo xam ne ni xëy na nguur a ko waroon jël. nga mel ni ku leen ci jéem a taxaw waaye nguur ñun la. nguur dafa tàmbalee ci citoyen bi nga xam ne ni gis na ni dëkkam moom moo ko war taxawu te sëñ Touba loolu la yare waa këram euh, lu mu lay laaj rek day doon loo xam ne nii daa bëgg ngeen ànd ko waaye mënal na ci boppam loo xam ne ni bis mu leen lii maa ko ci jëfandikoo xëy na dana wala woyofal la ca des loolu mooy initiative yoo xam ne nii ñëpp dañ ko war a jël ci wàll wu ci nekk loolu man maa ngi ci woo mboolem taalibe yoo xam ne ñi ngi nekk biir Sénégal ak ñu nekk bitim réew dëkk bi am na ci wàll woo xam ne dañoo soxla ku leen ci taxaw Mm, nit ñi toll nañ foo xam ne nii ci bariwaay infrastructure yi fi war am amu fi te am na loo xam ne nii man mënuma jàpp ne dañ ko war teg ci kaw nguur ndax dëkk bi doxewut noona lu ñu nguur defal ñu jël waaye fii li fi ëpp doole lépp ay taalibe ko def hôpital Matlaboul Fawzeyni bi ay taalibe ko fi defar mm-hmm. ñooñu bu ñu toogoon naan dañuy xaar dañuy xaar ba kañ bañ ko fi defaree bi ñu ko fi installé léegi ñaata at la hmm? te pour naa gisaatoo fi hôpital bu bees bon bu ñu xam ne am na ci loo xam ne ni murid il faut ñu jël seen bopp en charge du ma ne du ñu soxla nguur mais nguur lu mu dimbalee ñu jël ndax ay citoyen lañ ko ñëppit waaye nag am na ci loo xam ne nii Sëñ Tuubaa dimbalee nañu ko mooy ku ci nekk gëm nga dëkk bi te yaakaar nga ne li fi war a a def ñooñu nag dañoo war seen kamtalaay kàttan ku ci nekk ci wàll bi nga xam ne nii moom ngay yëngatu nga fexe xam ne nii nit ñi dañu a jariñu jariñoo gi mooy euh, dafa am xeeti service yoo xam ne nii néew na fi doole mm. lu mel ni tey ma yem ci euh, oftalmo bi lu mel ni ORL mm. ne Tuubaa gi yëpp diggante buli bakken ak nopp benn nit benn service moo fi am. Mhm. pour Touba gi yëpp. mais kooku dana sonn nit ñi bu ñu fa demee dana sonn ndax bëriwut. Mhm. yu mel noonu mën naa la ci limal ay ay yu bare baree baree bare te ñàkkul ay taalibe yoo xam ne jàng nañ ko xëy na environnement bi nga xam ne moo war a am ñu yombal leen ko état bi di leen dimbali. Euh, di leen di leen di permettre yenn ñu def ko xëy na yenn saay moom mooy mooy manqué ak yenn moyens yi pour ñu mën a installé wu parce que installé wu ci ci ci yenn anam yu lu jafe la mm-hmm. waaye nag ku ci gëm sa bopp xam ne si Sëñ Tuubaa rek fi nekk loo ci songit dana nekk sa ginnaaw di la dimbali ba la nga ca war a am di nga ko ca am waaw man fi mu toll nii euh, lii nii may li ñu def nii di unité ophtalmo bi la am na maternité bu nekk si biir c'est pour répondre à une demande parce que fii am na ci nit ñoo xam ne nii dañuy dañuy pour am anam yu baax accouchement boo xam ne da ngay nekk anam yu baax dañ leen jar ñu jël dem oto dem ba Dakar. Hmm. te lañ fay wuti daanaka du doon parce que ñu jàng ñu jàng loolu am na fi xëy na barab yi leen di dalal mooy hospitalisation ba na mu war a mel. Hmm. cabinet na mu war a mel. Mm-hmm. type de personnel ba fa war a nekk. ak kay ba noonu war a mel. Mm-hmm. yooyu loo xam ne nii soxlawul ñu koy jéggaane feneen foo ci dem fu nekk bu ñu jëlee ni tàggat leen la ñu war tàggatee nit ñi war nañu mën a accueil bu mel noonu parce que nit doo koy def fañ nekk te école yi ñu génne benn la. Mm-hmm. lu mel noonu nag il faut initiative yooyu bari bu ko defee bu baree nit ku ci nekk kem la nga xam ne bëgg nga ko. mën nga am service boo xam dina répondre ci loolu bu ko defee ñu dimbale ba nga def ko sa biir dëkk loolu dimbal la ci pas bi ngay ñak pas déplacement bi ngay def ñak ñak déplacé wut mu doon lo xamé ci ci kaw lo xamné muy gëna oyof da ngay sékki boy dem Dakar ci walu fay yoy loolu lepp dimbal loolu lepp digé Sëñ touba la té mm-hmm. taxawu jaam yi mm-hmm. ci walu wi nga xamné ni mun ko ñak loolu da doon farta jo xamné ni yap na ni ko xamit di ci bay sa waar daal di diko di sama bop moy euh, euh, ñu bañ di sagan saganté moy gis do xamné ni lu bees la sa biir yaram fu mu ci man di doon na bët mm-hmm. nga koy bo suba wala ginnaaw suba am na ci xeeti fay feebar yoo xam ne ne bu la dalee juróom-benn waxtu boo ñëwul boo ñëwee def déet déet si man dara. Mm-hmm. loolu nag fu mu amee nit ñi dañoo war di jóg di teel a dem soo ko waxee nag tam ñu yaakaar na xëy da ngaa bëgg malade wala nangam mm-hmm. waaye ñu xam ne malade yi bëgg nañ ko ndax xëy na ñoom ñoo ñu jox dara waaye ku fi ñëwit dañuy jël dara jox la bu ko defee boo fi ñëwee ànd sa jàngoro yàlla mën nañu dimbali bu ñu la bindalee dara nga jox la boobu saafara ko mm-hmm. ànd xam ne euh, docteur day soxla malade day soxla docteur ñu laa biirante suñu biir xam ne euh, ku ci nekk yaa ngi sa morom ci anam bi wala ci anam ba ca des li ci ëpp solo mooy lu fi nit def rek teg ko si yoon mu doon loo xam ne nii ku fi ñëw di nga mën a gindiku di nga mën euh, faju faj mu baax ñu dalal la teg ko si yoon également ñi nga xam ne ñun ñoo fi di liggéey di dalal malaadi suñu kam ne lay kattan ñu am ay barab yoo xam ne dañ fa dalal mu baax nga xam ne nii ku fi ñëw tamit doo yàkkamti même boo yàkkamtee nit ñi mën a wax ak moo taxoon jóg nga mën koo am ndax dañoo doon jamono yoo xam ne nit ñi dañoo yàkkamti te structure yi bëriwuñu dañuy gis ñoo xam ne nii dañuy am sax jàngoro mais dañuy tàyyee dem hôpital ndax dana ah fa boobu dee da nga fay yendu hmm. waaye ñu xam ne jàngoro yendu ci benn yoon ci hôpital wér li at mi moo gën di ko sàggane bañ téye la fa ndax loolu dara jaru ko auzubillahi ko xoolee ci métier bi ko tàmbalee léegi def nga ko muy lu neex ak loo xamante ni am nga ci euh, camp boo xam ne naqari la ñaari camp yi ban na ci ban ban ci ban faram mooy euh, pajum ndongu tarbiya waaw loolu moom xam naa ne lépp lu ma am loolu ma ko may ndax euh, euh, sëriñ bi sëriñ Saliou man lii may def nii deux mille deux mille en laa ko tàmbale woon boobu maa ngi jàng booba ñu ngi jóge daan teg may ànd sama jëriñ ju yox faali siise suy ñëwaan dañuy wàcc fële ca garage bi rek kon ne dem xel ko ñuy jaar njurur demee nam Touba xel ko su ñëw dañuy yëglu bu ko defee gune yi nga xam ne nii dañuy am mm, mm, jafe-jafe ci wàllu bët dañ leen ñu dajaleel suñ ñëwee toog fa ajjuma ci ngoon lañuy ñëw samedi dimanche ñu gontu ñibbi Dakar waaye xam naa ne loolu moom dem naa ba àgg ci foo xam ne nii xam naa ne lu mu am te ji loolu ma ko may waaw loolu moom ci li ma gën a neex mooy faj ndongob tarbiya ndax sëriñ bi daa am lu ñu ci waxoon mu ne loolu ñuy wax liggéey Sëriñ Tuubaa fañ dongum tarbiya dara ko ci féetewul kaw loolu moom bokk na ci li ma gën a neex la ca des nag duma ko wax ndax daa doon mbir yoo xam ne nii ku ko wax xëy leneen moo tax nga di ko wax waaye sama mbir bopp la sant loolu may sant yàlla la li ma xam daal mooy nit jàng na ba ba ba ba liggéey ba retraité te li ma am ci wàllu jëflante ay nit yu kawe amuloo ko fofu lañ lay duñ doyna borom xel. waaw waaw waaw moy moy moy moy moy da ngay da ngay bu den lo xam ni su teeloon na ñew mhm. di nga xam eh, di nga ci man dara da la nakari mhm. te da nga da nga sax xuloog borom waye li nga ci jublu mooy soñu ko bu ga defé li ko dal mu bañal kenen mhm. waye nak moy lima gëm moy tamit euh fajj Euh, sabab rek moo ne ci loxo jàmm mooy euh, lii ñu def nii euh, sabab la rek mi mm-hmm. liy wér si loxo suñu borom la la nekk mm-hmm. moo tax nit bu wéree jaar sa loxo da ngay sant yàlla mm-hmm. nit dina ñëw sax ci yow am lu mu yaakaaroon nga jëflanteeg moom ba pare nga gis résultat ba melut noona mu naqari la waaye nag boo ko delloo ci la la ma waxoon rek mooy sabab ki lu gis ak ku ko mën di xool du gis ku ko loo ko man defal du gis loolu lu yàlla dogal ba pare la waaye na sabab ba rafet mooy nanga ko dalal fi nga war a jaar ak moom na nga fa jaar ak moom yëpp ba mu xam ne ni bu doon dee loo xam ne ni yow sab loxo la nekk ni lii dana ko am waaye nag li may wax ne des fois day am loo xam ne ni ñëw ci loxob nit ni ko wér ñàkk nekk ci loxob nit noonu la wér di ñàkk nekk ci loxob nit sabab nag moo ci nekk ki yàlla na mu mu wér mën na ko jàll su loxo mu wér kooku bu dajee ak moom mën naa la oh Abdoulaye amul morom la lay wax. ki nga xam ne ñëw na fi sonn rang def lépp ko xool ko ne ko ah, sëñ bi de moom dëgg-dëgg sa jàngoro yi am na foo xam ne nii mu ne ah lii rek lañ ma daan wax wax nañ ma ne waxoon naa leen su ma fi ñëwee tamit am saafara. Hmm. kooku euh, am na lu ko naqari ndax yaakaar nañ amoon tas na yow it di nga am lu naqari ndax boo soñoon loo loo loo loo loo koo gis rek aajoom faju waaye nag da xam ne nit nga waaw. la nga man sax dina am lo ci la nga gëna man dina am lo ci def du jub di gërëm ñëpp di wax wa Touba ne euh ñun de duñu taxaw ndax fajum bët moy suñu mbir waaye wal yi nga xamne ne jaakar nañ ne man nañ ci dara inshallah dinañ ci jëm suñu këmte lay katat luñ ci mënut it dinañ wuti ku ko man andi ko ci barab bi mu to nit ñi suñu këmte lay kàttan jubluñ ci len nak yàlla rek moom la ñuy seet liggéey Sëriñ Tuubaa rek lañ ci jublu liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek lañ ci jublu parce que daa am loo xam ne li ne ma la wax ne ni euh, paj dongob tarbiya boobu moo ma gën a neex ci li may def xam naa lu ma am moo ma ko may ndax Sëriñ Saliou wax na ma ci wax na ma ci defal na ma ci ci lu ma wér fii ma nekk ni tey jii wér na ma ni li ma ko may loolu la waaw fi ma ci àgg tey jii la ma ko may loolu la donc ñi dawee ci yeneen dëkk tamit ñëw biir Touba gii nii fekk Sëriñ Touba dañuy dugg ci wàll woowa. lu leen ci nit dimbalee it rek nga ko def te man loolu mooy moom laa gëm te noonu lay doxe euh, du bàyyi nag mooy dana diis dana métti dana la dëkkal foo dëkkul xëy na dana la teqatal dana la gàllankoor dana tiital waaye leer gi sama xol ni lii may def ni sëñ Tuubaa moo tax moo tax ma di ko def loolu damaa doy mu kawel leneen lu nit di wax walla muy def mu jëm ci baare ma mu jëm ci yàqal ma mu jëm ci dëkkal ma fu ma dëkkul gëm gi ma gëm ne lii may sëñ Tuubaa moo moo tax ma di ko def rek loolu damaa doy wulis li ci des lépp daal hmm. lan moom ngay dénk askan wi nga xamante ni bii ñoo ngi lay bàyyi xel waaw li jërëjëf euh, sëñ Abdou Lahad Faye ñi ngi lay euh, sant baax di la gërëm ci occasion bi ñu may tey ñu mën a waxtaane ci jàngoroy bët ak lan mooy bët ak taxawaay bi nga xam ni askan wi muy kenn ku nekk ci ñun war nga koo mën a am li olaf di wax fegu mo gën faju ca ko bala ngay lakkale motax kon tay ñu doon indi jotaay bi ngir nit ñi nak kep ku nekk ci ñun mëna xam li ci sa wal nga man ko ci jël mu melni kon fekk ci won nañ ko fi ci cabinet di cabinet Serigne Abdoul Ahad nekk ci euh, Touba 28 mom Serigne Ahad fay di euh, fajj bët beut ñukay sant baax di ko ci taxway bi nga xamni amna ko di ndaw nim ko waxe euh, sobu ngir xéxal Touba sobu itam ngir Touba lépp lu am ci àdduna bi am Sénégal am ci Touba gi loolu moo ko indi mu jóge hôpital Le Dantec ñu fa Fawzeyni bu ubbi euh, cabinet bi mu nekk nii tey kon loolu tam di euh, li ñuy wax ni wan ma sa ndaw euh, tey ma wax la si réew ëllëg nan lay doxee kon loolu moo ko dal ñi ngi sant baax Serigne Mbacké Dieng suñu caméraman bi nga xam ni moom la ñu àndaloon di sant mbooleem ñi nga xam ñu ngi doon ànd ak ñun